waa Thiel of tey dafa nekk bis boo xam ne bis bu am solo la parce que dafa dellu siwaat ci njàng président nag dafa am programme boo xam ne dañu wax ni dañu seet naka la ñuy gën a yaatale njàng mi ba ku ci bëgg a am rek am ci eh, ñu yokk qualité jàng bi ba xale yi bu ñu jàngee bu ñu demee di jonjoo ak ñeneen ñu dëkk feneen ñu xam ni ñii daal li ñu jàng mokk na rafet na baax na loolu nag mu ñëw defe ko fii Tivaouane ma bëgg wax ni président d'abord bi li mu doon inauguré tey Tivaouane ba Sénégal nekkee Sénégal ba tey juróom-ñett lañ ca woon président ci fukki at mu ne dama ciy defar ñaar fukk tàmbale ko fii tey ci Tivaouane war a def donc ñaar fukki bloc scientifique ak technologique xam nga kooku boo ko xoolee rek bu la nee dama bëgg a jëmee réew mi kanam dama bëgg bu ëllëgee ñu nekk ci pays émergents yi war nga gëm ni kooku commencé na ci fondement ba fondement bi mooy lan mooy jàngal xale nag jàng bi du jàng tubaab rek mais même daara yi dama leen ciy dugal gis ngeen ki doon présenté programme bi dafa ni am nañu déjà téeméeri daara yoo xam ne dañ leen sélectionné pas pour jàngal leen ay alxuraan rek ñuy tari déedéet pour jàngal leen ñu maîtriser science ak technologie parce que jàng bi bu fekkee da ngay jàng alxuraan rek di tari alxuraan te buñ la nee kaay liggéey amoo looy liggéey mais kon waraatekat yi dañuy bari rek mais yëf yi du sotti il faut xale yi jàng ci daara yi mën a am maîtriser l'outil scientifique et technologique bu boobaa réew mi dina mën a jëm kanam. ci wàllu nekk lu am solo ci jéego yu ngeen def ngir falaat. ah wàllu politique gis ngeen tey département bi yëpp moo taxaw ñëpp taxaw nañ yaakaar naa ni ni ndaxaar Ndakaar taxawee ñëpp seet nañ ko ñëpp gis nañ ko. léegi nag li président moo yootu mooy nañu jubóo nañ ñëpp ànd parce que nee na moom li mu bëgg mooy responsable fu ñu mën a nekk ñu ànd falaat ko premier tour bu ñu taxawalee élection présidentielle ci loolu lañu taxaw ah coow wax ji nag jib na ñëpp nee nañu jubóo nañu léegi nag werante xuxaan tekki tubéy nañu dem ba ci biir waaye daal li mu ñu wax ñun moom la ñuy doxal man daal suma responsabilité ak suma rôle mooy fexe ba fédéré ñëpp. ñu ànd liggéey derrière le président su ko defee président mën a faluwaat liggéeyal réew mi pour que le Sénégal soit émergent à l'horizon de mille vingt cinq